par système pay-per-view ngeen koy mën a seetaan ci www.lambdiaspora.com. Una lucha libre que no tenemos que dejar pasar. Boinian contra Tapatín. Yo ya he comprado el billete para ver el combate en directo. ¿Y usted a qué espera? Buenas tardes, Samagay. Salam, salam, Samagay. Ñun waa Barcelone. ba pare. ante Tafatin ak Boy jënd leen seen code ñun waa Barcelone jënd nañ suñu code. asalaamaaleykum sama gars ah, mbir mi ñëw na. diggante Tapha Tine. doon xaar ñëw na. kon bokk ko kenn nettali. yéen waa diaspora bi. yéen waa États-Unis ñun waa Arlington. jot na. gaaw na gaaw jënd leen seen code. bu leen ci kenn jëkk. buongiorno buongiorno tutti e donna e uomo. Allora, io sono per annotare di bigliettino e giocare di Boigna e Tafatin. waa ana Gambian diaspora bi ana waa Sweden làmb nag moo am ñuy nekkaan Tapha ak kii di Boy Niang numéro 2 it's a pay view event foo leen ko mun a seetaanee mooy ngeen dugg fi nga xam ne mooy lambdiaspora.com jënd seen code su ko defee ngeen mun a seetaan làmb bi bu leen ko kenn nettali nag. nag ngeen

Connectez-vous donc rapidement sur www.lambdiaspora.com et achetez votre passe. ñun fii waa France jënd nañ suñu code ba pare. Regardez, dimanche décembre arène système pay fukki combat benn takkusaan Tapha Tine takk ci rib numéro le Chapacholi. Tidiane Faye le professeur de ak Alioune ak yeneen juróom-ñetti rek ngeen ko mën a seetaan jëf mbokk yi nga xamante ni bi yéen a ngi ñuy topp ci Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen bëggee di leen ñaanal bu baax a baax jàmm ak salaam euh, di leen wax ne ñi ngi toog ak suñu papa aadama Bopp mi nga xamante ne bii moom mooy porte parole bu CNG yor kàddu CNG moom la ñu fas yéene sekkal li nga xam li nga xamante ne bii mooy suñu waxtaan tey papa ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. mbaa yaa ngi si jàmm. waaw maa ngi ci jàmb sant yàlla bu baax. li waral waxtaan wi mooy combat bi war a dox ci diggante tafaatin ak ki nga xamante ne bii mooy euh, booy Niang coow li bari ci lool ñii ngi naan dina am ñii naan du am fan la ci ki nga xamante ne bii mooy promoteur bi tollu ak waa CNG. Euh, promoteur bi yàlla def na wàccanoo ak ñun ndaxte lépp li waroon suñu diggante ak moom matal na ko léegi kañ li ci des mooy ñaan yàlla suñu boroom. fekkee dimanche ci jàmm ak salaam ñaari mbër yi nekk en forme ñëw wuy si ñaan yàlla suñu borom ñu bëri ko ci bisimilah rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilah rabil alamin kon mën nañoo jàpp ne fi mu toll nii reliquat mbër yi ak li nga xamante ne bii moo waroon diggante promoteur bi ak CNG lépp def na ko. Euh, macha allah promoteur bi matal na digganteem ak CNG léegi daal li ci des mooy ñaan yàlla fekkee ko te tal ko dimanche incha allah ñaari mbër yi ñoo nekk en forme bëri ko mu sotti ci bëri loolu la ñu ñaan yàlla. Euh, bëggoon nañu tam wax ci côté organisation euh, bëggoon nañoo xam euh, ñi nga xamante ne bii ñooy waa CNG yan dispositif lañu jël par rapport ak bi combat nga xamante ne bii combat bi bari na coow trop ndax ñaar ñi koy bëree ñoo toll noonu. lépp lu CNG mosoon jël comme disposition dina ko gën a renforcer parce que gis nga tey fi mu toll nii. yëngu-yëngu yi am ci sport bi yëpp waral na CNG tey lépp lu mu doon def benn dina ko def ñaar wala ñett incha allah rabbi daal nañu séntu ne que organisation bi dinañ dinañ ci def loo xam ne mosuñu ci mosuñu ko def. kon daal mën nañoo xaar organisation bu mucc ayib incha allah le 19. incha allah rabbi loolu la ñuy ñaan yàlla te ci loolu la ñuy dox fas ko yéene jàpp ko bu baax organiser ko mu am ci jàmm ak salaam loolu daal mooy suñu mbëbët te ci loolu la ñu ne. Euh, par rapport ak ñi nga xamante ne bii ñoo nekk ci ci ci diaspora bi nga xamante ne bii ñoom tamit ay amateurs yi làmb ñoo fa nekk bëgg làmb ñoom di di seetaan làmb ci li nga xamante ne bii moom mooy euh, seen YouTube yi ak euh, à travers mode pay per view ñoom tamit ban message nga leen di lancé. non message bi ma leen di lancé mooy nañu dalal seen xel parce que bu yàlla defee ni moom promoteur bi li wàcc li mu waral ak ñun wàccoon na ko. léegi dara desul lu dul sëgg bëre ñaan yàlla kañ bés bi ñëw ci jàmm ak salaam ñaari mbëri aussi ñëw tal ko fekkee ko loolu rek la ñuy ñaan. kon daal mën nañoo wax ne wurooy wa dem na këng waxi mag dem na ndañ taal. jeex na bëre sëgg bëre daal moo ci des arbitre bi sifflé daal waaw loolu daal la ñuy ñaan yàlla daal képp ku nekk ci diaspora bi nañu dalal seen xel xam ne incha allah rabi combat bi dina am ndaxte promoteur bi matale na digganteem ak CNG. ñaari kaa ñaari kaa yi mbër yi muy uh, ki nga xamante ne bii mooy tafaatin ak Boy Niang seen supporters yi yan message nga leen di jox. li ma leen di ñaan mooy na ñu ñëw ci jàmm xam ni ndam li du génn Sénégal ndam li du génn Dakar ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay mbër mooy trésor moromam ndaxte mbër mooy jox moromam alal. arène national nag na nañu xam ne c'est bien national. 32 milliards du caaxaan loo xamee ni dañ doon wax ni dina am wala du am ba yàlla def mu am buñ ko amee nañ ko jàpp ak suñu fukk loxo nañu ñëw ci jàmm xam ni làmb du dara lu dul sport te sport nag dafa am ay verdict dina am dina am ku daan dina am ku daanu wala mu match nul ñun daal li ñu bëgg mooy nañ ko teg yëpp ci yoon def ko ci yar ak teggin xam ne daal yëfi ñun ñu ni nen la te ñu xam ne arène nationale c'est bien public sénégalais yëpp ko moom nañ ko sàmm waaw nañ ko sàmm sa mbër mën nga ko supporter mën nga ko tàccu mën nga def lu la neex mais nag nañu xam ne arène national c'est bien public te bu ñu nañ ko sàmm daal arène national daal nañ ko sàmm parce que bu ñu ko sàmmee ñun ñë suñu bopp rek lañ ko sàmmal. kàddu gu mujj gi. kàddu gu mujj xanaa di ñaan yàlla suñu borom mu may ñu ñu fekkee ko te tal ko. mu door ci bismillah rahmaani rahim am àggale ñu àggale ko ci alhamdulilah rabil alamin loolu daal la ñaan. jërëjëf suñu papa Adama Bopp dégg ngeen li mu wax kàddu yi leer na nañ euh, combat ba ma nga noonu incha allah le 19 décembre fii ci arène nationale diggante Tapha ak ki nga xamante ne bii mooy Boy Niang càppaacoli gi nar a nekk combat bu metti kon mi ngi noonu wuré dem na këng waxi mag dem na ndaañtaal yi lu waaye doon jaay le 19 incha allah bu arbitre soufflé wàcce loxoom génn seen diggante ñoom ñaar dana lamb incha allah lépp fii lay amee ci Leewtoo TV yàlla na yàlla dolli jàmm. jërë ngeen jëf mbokk yi comme ni ngeen ko gisee ñi ngi toog ak suñu papa euh, Max Mbergane euh, per ñu ngi lay ziar. maa ngi lay fay euh, Mbaye Babacar. di rek di xaar say laaj ma tontu ci li ma xam. comme ni ñu ko xamee euh, dañuy waxtaan ci combat bi nga xamante ne bii moo war a dox ci diggante Tapha Tine ak euh, Boy ñaa yow xam na ne yaa ngi bokk ci biir structure boobu ñuy wax Leewtoo production fan ngeen toll ci préparation yi. fi ñu toll mooy euh, lépp sotti na li ci des mooy open press tey bu Boy Niang tey nag suñ teewaay fii mooy indi reliquat wu mbër yi bu ko defee di ñaan nag fête bi réussir. xalaat nañ ne daal na ñëpp ñëw nag ci discipline ci fair play la ñu woote te it nag ku ñëw dinga nga euh, ñu xalaat nañ ne di nga gis lu am solo ñaari mbër yi pare nañu gis naa ne def nañu cinq face to face bu ci ne avorté mais bii nag xalaat naa ne dinañu jàkkaarloo bii nag soxlawuñu ay kàddu mais li wértoo daal combat bi wër na àdduna ñëpp ñu ngi koy bàyyi xel combat bi bëri ay enjeu lool kenn ku ci ne da ngay ñëw pour am ndam xeex bi dañ ne faveur Tapha Tine la nanguwuma ñoom ñaar ñëpp ay xeexkat lañu bëre bi dañ ne favori booy ñaala nanguma ñoom ñaar ñëpp ay bërëkat lañ mais loo ci mënti dégg xam naa ne ku juum daanu ku sa mbokk ñëw wala sa staff technique ne la combat bi day yomb boo ñàkkee moo la ko xañ du yomb ci ñoom ñaar ñëpp ku juum daanu. ku juum daanu kon mën na nañoo jàpp ne Leewtoo production wàccoo na ak Tapha wàccoo na ak Boy ñaar li ci des rek mooy le 19 ku ci nekk ñëw tooyal sa ngem ba bëri. waaw miin nañ loolu boo gisee ñuy leeral rek yàqul làmb ndax euh, day ñaan yàlla rek fête bi terminé am beauté te ñu ngi ciy am yaakaar dina am dina am tuus bu neex dina am ambiance fête bi danañ fexe ba euh, ñun lu ñu ci war dinañ ko def li am solo nag mooy ñu ñaan rek suñu borom ànd ak ñun mu commencé ko ci jàmm mu jeex ci jàmm que le ci wàllu sécurité nag na seen xel dal ne sécurité moom pendant la ak après te lu ci ne dinañ ko jël dinañ jël matukaay duñ bàyyi dara. mais daal rendez-vous bi dimanche la jaratul ma naan la 19 day sori da nga naan dimanche rek. dimanche fii ci arène nationale. que le meilleur euh, production wax nga ko sànq ci côté sécurité euh, mën nañoo xaar organisation ba nga xamante ne bii mësuñu koo gis. waa li li nga xam ne ñoo ko moom danañ ko jël te xam naa ne CNG du bàyyi CNG li ñu war yëpp dañ ko def ndax combat bi passé Siteu ak euh, Papa Sow gis naa ne ñoom jël nañ yeneen i matukaay te xam naa dinañ ko gën a respect. nañ ci jàngat dem nañ ci jàngat daal loo ci mën dégg daal. dañuy ñaan mu terminer en beauté te ñu ngi ciy am yaakaar que le meilleur gagne. jërëjëf yi ñu ngi leen di euh, nuyu bu baax a baax fii ci euh, Leewtoo TV comme ni ngeen ko gisee ñu waxtaan ak euh, suñu papa Adama Bopp waxtaan ak suñu papa Max Mbergane dañu fa fas ne waxtaan ak ki nga xamante ne bii mooy njiital Leewtoo production di Pape Thialis Thialis ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay Babacar di la nuyu di nuyu sa équipe bi donc di nuyu Sénégal ak yëpp. comme ni ko père Max waxee sànq mën nañoo wax ne fi mu toll nii lépp mat na. waaw macha allah lépp mot na donc euh, régularisé nañ lépp donc ce qui reste aujourd'hui mooy ñu xaar jour dimanche incha allah ñaari mbër yi mën a jàkkaarloo. wàccoo nga ak ñoom ku ci nekk jox nga jox nga leen rel seen reliquat. bien sûr wàccoo naa ñoom ñoom ñëpp ki nekk li nga waroon am jox nañ la ko donc CNG aussi lu ñu waroon ak CNG yëpp mot na sëkk. donc li des mooy xaar ba bés bi muy dimanche bi ñu jëm ni incha allah ñuy wax ñi yàlla may ñu ñëpp ñu am wërgu-yaram ak gudd fan ak fekkee ba def ko ci fair play parce que combat bi ci fair play lañ koy woote bëgg nañ nit ñi ñëw kii daan ñu xam ne daan nga ku daanu aussi euh, encouragé ku daan encouragé ku daanu et ku daanu aussi donc félicité ki daan mm-hmm. waaw dans le fair play côté côté li nga xamante ne bii mooy côté organisation ban organisation la ñu mën a xaar incha allah le 19 fii ci arène nationale. waaw y aura une organisation bu bu mucc bu mucc ayib c'est pour juste euh, fexe ba organisation bu tënku ci sécurité parce que base bi yëpp mooy sécurité bi et que tey li ñu ba ñëwee ni li ñuy gis ci dispositif sécuritaire bu nekk déjà arène national te combat bu commencé wu rek mooy wane ni combat bi incha allah dina sécurité ndax tey pour am accès ci arène nationale dafa difficile donc loolu mooy wane rek incha allah bu bés ba dañuy gën a renforcer sécurité bi et que structure aussi bu mel nii di di di def combat yi mel nii yoo xam ne sur le plan international war nañ aussi toujours di am sécurité et tey li ñu gis ni dal na suñu xel si plan sécuritaire mën nañoo xam ñaata élément ñaata élément ngay jël. waaw réunion bi sécurité bu ñu war a jàpp pour combat bi suba lañ koy def quinze heures donc euh, élément yi ñu en tout cas li ñu commandé si élément c' est 1000 éléments police ak gendarme ak escadron monté bu gendarmerie aussi woo nañ ko pour que ñu mën a jël les grandes artères mën ko sécuriser pour que population yëpp mën a dox seen soxla sans ñu am benn inquiétude. ñu nekk ci diaspora bi nga xamante ne bi pay per view lañ koy seetaan euh, mën nga leen a assuré dinañ seetaan làmb ji ba mu jeex tàkk ci seen téléphone te duñ ci am benn jafe-jafe. oui waa effectivement parce que ñu nekk ci bi d'habitude dañu am problème mu seetaan am image qualité. mais cette fois ci ñaari plateforme la ñuy liggéeyal donc muy seen affiche mu nekk Sénégal niveau national. am aussi làmb diaspora bi nga xam ne ñoom ñoo nekk États-Unis nekk côté diaspora bi donc ki ki nekk diaspora bi aussi. bu bëggee seetaan bu bëggee seetaan làmb ji si qualité bu baax incha allah dina ko am bu demee làmb diaspora parce que ñoom ñoo yore international bi te national bi seen affiche moo ko yore aussi ñu fi nekk dinañ ko mën a seetaan bu baax c'est pour juste yëpp dañu bëgg permettre que amateurs yi seen bopp mu nekk diaspora wala nekk plan wala mu nekk au niveau national ki nekk mën a am qualité de image seetaan ko te du dagg te buñ si paree aussi dinañ jéem a laaj ñoom seen retour pour xam exactement ndax am nañ satisfaction si ñun lu ñu organiser wala déet ci côté billet yi nga xamante ne bi ki nga xamante ne moom moo fas yéenee génne xaalisam ñëw ci stade bi euh, billet yi naka lay demee. waaw billet yi aussi dañ ko def par rapport ak nit ñi seen poche fu mu toll parce que jàpp nañ tey dëkk bi xaw na metti donc ñëpp mënuñu am yenn yenn yenn xaalis pour mën a ñëw si kii bi surtout que supporters yi ndaw yi nga xamantey tey làmb ji soxal ñu nekk ay supporters yu mbër ñoo gën a tax ñu def tey ñoom billet. découverte bi 3000 francs pour permettre la ñu ñëw donc li nga xam ne mooy euh, couverte bi ñu def ko mille francs parce que amateurs yi aussi bëgg nañu seetaan lamb ji si jàmm asalaam bëgg nañ aussi ñu fay lu yem loo xam ne bu ñu ñëwee dinañ mën a aussi seetaan ko ñu def euh, prix annexe loge mille francs et ñu def loge officielle 50000 xëy na mënoon nañ def sa prix yu gën a mag mais jàppee wuñ ko doon dañu jàpp dañu bëgg ñëpp ñëw seetaan si moo si am solo moo tax ñu wàcc wàññi piri yi ba nga xam ne ni ñëpp dinañ mën a ñëw seetaan si làmb ji parce que dañu bëgg euh, stade bi fees ñëpp seetaan ko dañu dañu bëgg stade bi fees ñëpp seetaan si ko xam nañ ne stade bi bu feesee euh, amateur yi dañuy ñëw fans club mbër yi dañuy ñëw à travers ñaari kaay muy Tapha Tine ak Boy Niang seen seen fans club yi ban message nga leen di lancer. waaw message de de paix message wu fair play parce que fans club ak supporters yëpp fair play lañ di laaj donc xam ne Sénégal seen nous dans nu combat bi ku mënti gagner victoire bi fii lay comme ni ko euh, président Adama Bopp waxee. donc loolu mooy wane ni fair play lañ jëm te loolu rek la ñuy ñaan mu am jàmm am fair play ñu ñu bëre ko si jom ak si fulla ak si fay ja donc kii am ndam ñu xam ne suñu borom moo la ko jox keneen ki aussi xam ne suñu borom moo tax mu ñàkk tey et que ñu la vie continue mën nañu xaar yeneen journée après Tafatine Boy Niang. incha allah bu ñu ci paree rek dès lundi ou mardi on viendra voir ak CNG lañ moo fi am lu possibilité bañ opportunité la ñu mën a am ñu saisir ko pour amateurs yi tant que ñu ngi financé pour juste fexe ba amateurs yi mën a gis seen bopp ci lu ñuy def. kàddu gu mucc. waaw di la remercier remercier ñëpp di remercier surtout sponsors yi ñu jàppale ku mel ni Lonase CG CGC donc euh, ak euh, ak Pact Food. Euh, Carax Bisaay assurance APA donc mais mention spéciale aussi à Jador bi nga xam ne aussi moo ñu gën a accompagner dès le début moom il a cru au projet nekk ci donc ñoom ñëpp ñu leen di remercier di remercier aussi supporters amateurs di remercier aussi waa CNG donc si leur professionnalisme dans le travail ak le, le sens de l'écoute et de la responsabilité bu ñu am c'est à saluer aussi donc ñu remercions tout le monde di remercier aussi le parrain donc aujourd'hui le parrain c'est président Pape Diop donc mooy parrain bi nekk nit koo xam ne donc dimension internationale la am ñëpp loolu xam nañ ko xam aussi comment il est pondéré comment il est comment responsable donc qualité yooyu yëpp mu dajale moo tax aujourd'hui ñu choisir sa def ko parewu événement bi donc di ko wax moom aussi di ñaana lu mu bëgg moo ko xam donc yàlla nag suñu borom defal jàmm defal ko li mu bëgg may ko mairie Ndakaaru donc voilà li ñu si waroon wax di leen ñi gërëm aussi yéen ak équipe bi nga àndal yéen ñëpp merci yi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 par système pay-per-view ngeen koy mën a seetaan ci www.lambdiaspora.com. Una lucha libre que no tenemos que dejar pasar. Boimian contra Tapatín. Yo ya he comprado el billete para ver el combate en directo. ¿Y usted a qué espera? Buenas tardes, Samagay. Salam, salam, Samagay. Ñun waa Barcelone. ah jënd ba pare. entre ak Boy jënd leen seen coach ñun waa Barcelone jënd nañ suñu coach. asalaamaaleykum sama gars yi. waa Sénégal. Ah, ñëw na. diggante Tapha Tine. doon xaar ñëw na. kon bokk leen kenn nettali. yéen waa diaspora bi. yéen waa États-Unis ñun waa Arlington. kon seen coach. bu leen ci kenn jëkk. Buongiorno, buongiorno a tutti e donna e uomo. Allora, io sono pronotare di bigliettino e giocare di Boigna e Tafatin. waa ana Gambien diaspora bi ana waa Sweden lamb nag moo am ñuy ne Tapha Tine ak kii di Boy Niang numéro 2. it's a pay view event foo leen ko mun a seetaanee mooy ngeen dugg fi nga xam ne mooy lambdiaspora.com jënd seen code su ko defee ngeen mun a seetaan lamb bi bu leen ko kenn nettali nag. nag ngeen

point lambdiaspora.com et achetez votre passe. ñun fii waa France jënd nañ suñu code ba pour moi c'est fait. kon nag mbokk yi dimanche 19 décembre arène national système pay per fukki combat benn takkusaan Tapha Tine takk ci rib Boy Niang numéro le Thiapathioly.